Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw maa fay euh, Fatou Thiam Ngom. yow eh. yaay njiital alliance ànd gësëm nekk itam secretaire général bu SUTSAS alors euh, tey ñuy waxtaanee d' abord mbirum information sanitaire am na benn syndicat SDT 3S yëkkati woon ay menaces ne fii fanweeri fan ak benn weeru août mu di démb dana amal rétention d' information alors yéen euh, SUTSAS defoon ngeen ko fii bi ñu ci gën a jàpp mooy bi amoon ci jamonoy président Abdoulaye Wade Modou Diagne Fada nekkoon ministre de la. santé ci jamono jooju te ngeen ne loolu daanaka dafa silmaxloo woon euh, système sanitaire bu Sénégal ndax mën ko ñëw ak ñun d'abord ci information sanitaire mooy lan ak naka la ñu koy wutee maanaam dajale gi nu muy demee. waaw information sanitaire bi mooy euh, xabaar bu nga xamee ni euh, ñi naan infirmier de post te ñu leen di wax docteur donc information sanitaire yi ñoom ñoo koy dajale maanaam boo gisee ci ci de santé yi. maanaam poste de santé yi ak centre de santé yi euh, ku ci nekk ku ñu naan ku ñu naan de poste dafay am benn registre maanaam képp ku ñëw euh, di faju si danañu seet ndax da nga ñëw faju si wala da ñëw pour ñàkku si wala bu dee jigéen jigéen wérul dafa ñëw pour donc pour consultation wala bu fekkee ne aussi am na programme yi fa nekk ay tuberculose ak ay palio yu mel noonu ñu aussi dañuy xayma activité boobu yëpp donc xayma activité yooyu nag boo ko defee ci registre bi euh, ak aussi li nga xamee ne xel li mooy ñi nit ñi fay ak li ñu fayul loolu xabaar yooyu dañ koy jox médecin de district bi mm. médecin bi mu féete kaw léegi nag euh, suñu dajalee xabaar yooyu poste de santé bu nekk euh, district bi bu dajalee xabaar yooyu yi nekk bu daal ko yóbbu jox ko jox ko ki ñu naan euh, médecin chef de district bi kooku nag mooy dajale yooyu yëpp daal koy jox médecin chef de région bi médecin chef de région bi jox ko au niveau national donc noonu lay demee mm. waaw léegi nag bu fekkee ni nag xabaar yooyu joxe joxe wuñ ko donc dafa am ay njeexital ci lu bari bon njeexital bu njëkk bi moom mooy euh, xabaar yi yi nga xam ne xel ni yor nañ ko ay xabaar yuy renseigné comme ni ma wax ci feebar bi ak ci problème mu programme yi te comme que Sénégal ci boppam euh, munul mënul financer euh, système de santé bi yëpp mënu ko financer dafa am rek lu ñu ciy def. li ci des ci poche poche ménage yi lay jógee leneen di bailleurs yi koy jox mm-hmm. mais bailleurs yi aussi bu ñu la joxee xaalis aussi pour ay programme danga nga ko war a justifier da wax ni activité yi laa def ñii mm-hmm. la concerné pour que ñom ñu mën la joxaat encore nga mën a nga mën a continuer donc muy noonu mais Sénégal aussi fàtte woon naa ko wax ci français mm-hmm. euh, xabaar yooyu mu yor yëpp ci information yi euh, kuréel bu ñu naan organisation mondiale de la santé daf koy jot weer wu nekk dafay def li ñu naan benn bulletin bu ñu naan euh, mensuel pour yëpp ñu wax seen feebar yi nu mu demee ak seen activité yi nu muy demee donc feebar yooyu bu ñu ko téyee loolu day gàllankoor lu bari dana tax ki nga xam ni moo ko soxla du mën a justifier activité am mm-hmm. et ensuite bu fekkee dafa bëgg a def stratégie maanaam bu bëggee def ay yeneen i pexe du ko mën def parce que yorul xabaar parce que mm-hmm. yéen xëy na du ma leen jàngal dala nee nañu kii détient l'information détient donc le pouvoir. Mm-hmm. alors euh, est-ce que bu grève bi yàggee dina am euh, bu grève bi yàggul plutôt dina am impact ci euh, li nga xam ne moom mooy système sanitaire bi. waaw bu grève bi yàggul du am impact bu grève bi yàggulee il faut que mu am ay ñetti weer ba juróom-benn weer bala lu ko ëpp mu door a a impacter ñun ñoo ko xewal fii ci Sénégal mhm. ñoo ko xewal rétention de l'information parce que dañoo bëgg simplement parce que grève dafa métti si ñun métti ci malade yi mhm. métti si ñëpp ba na nag comme que euh, euh, euh, loi moo ni balaa ngaa dem grève da ngay yëglu li ñu naan préavis de grève da yëglu donc mais boo yëglu aussi délai bi trente jours la fanweeri fan la mm. mais bu fekkee ni da ngaa joxe fanweeri fan nga joxe sa préavis de grève kenn faalewu la ça signifie que gouvernement bi a pare pour xeex loolu nag mooy indi grève bi mais grève bi nag ñun gën a luñu mais bu ñu ba grève bi dem ay ñaari weer ñetti weer dañ naan donc comme que malade ñu ci souffrir te gouvernement bi lijjantiwu leen ñun dañu wut beneen pexe bu nga xam ne gouvernement bi dana yëg mbir mi te fekk malade yi ci xaw sonn donc loolu mooy wax parce que du suñu sabo aussi ñu dem grève waaw loolu nag moo indi rétention de l' information sanitaire maanaam mu la rek maanaam pexe la pour que ki nga xam ni moom nga seqaloon mu ñëwaat ci taabal ji li mu liggéeyoon mu def ko wala li nga xam ne waroon na ci waxtaanee mu toog waxtaanee ko. Mhm. alors bu weesoo grève bi war a yàgg pour mu am impact est-ce que aussi euh, syndicat bu nekk ak xëy na ay nitam fi ñu placé wu dina ko mun def parce que su ma la déggee euh, collecte bi dafay jóge ci suuf di jëm ci kaw kon ban syndicat euh, ak naka la ay nitam war a toogee moo mun a def euh, grève ba mu am njeexital ci yëf yi doxee ci wàllu wér-gu-yaram. rek moo ko fi mën SUTSAS daal moom moo ko fi mën. Euh, amul keneen ak hmm. substance nag fu mu nekk nii ak ànd gësëm ak collectivité euh, territoriales yi donc mën nañ ko. lu tax substance rek. waaw ndaxte substance boo gisee collecte bi ñoom ñoo koy def mooy information de poste yi. ah superviseurs yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy traité mais superviseur balaa mu see jot il faut information de poste collecté ko. te boo seetee Sénégal information de poste yëpp gis nga ñun ànd nga seen biñ dee grève en deux mille dix huit gis nga li fi xewoon yëpp donc dem nañu ba système bi nekk aveugle. ba fu mu nekk nii ministère de la santé bi mu dee xayma at mi atum daaw Euh, amul benn activité ndax ànd gisam moo ko def hmm. ah, benn activité defuñu ko ndax ànd seulement deful activité yi yi normal yi mais ensuite def na rétention aussi boole ci hmm. xam nga gisoon demoon nañ sax bay delloo ñàkk yi vous rappelez hmm. yi ak glacière yi mu taxoon gouvernement bi au dernier moment mu mu retourné parce que aussi affaire grève aussi affaire xeex la si jàngal dara la même bu ñu dee xeex ci ëpp doole moom donc grève aussi genre guerre la rek problème de rapport de force la donc bu demee nag boo xamee nag mënoo mënoo dajale juróomi nit nga naan da ngay def rétention da ngay nax sa bopp parce que am ñu ko fi doon jéem mais sottaluñu. Hmm. waaw sottaluñu ko et euh, de la République ñu de ñu ne de non agression. Hmm. maanaam du ngeen egg fa ngeen eggoon ñu duñu duñu kon duñu war a mën a egg fa ñu fa ñu nekkoon parce que gënaluñu ca te d'ailleurs te d'ailleurs ñu ngi rafetlu problème mu namara bi ñu ngi koy réglé ñu ngi réglé aussi ay problème yeneen problème yu nga xam ne ni mi ngi fi nekkoon ay recrutement yu mel noonu d'accord alors gis nañu ne nag rétention d'information bariwul li ñu koy dégg torop ci sandika yi lu ci ëpp daal grève la ñuy wax ak yooyu banque seen yoxo bañ a liggéey alors lan moo tax est-ce que euh, rétention d'information dafa jafe def grève wala lan moo tax daal bariwul ci syndicat yi koy def non non ñun ñu koy def moom la ñuy mujjee parce que dañ koy mujje parce que dañ la wax na dañu wax pour délaisser les malades c'est-à-dire pour que malades yi mën a féex hmm. ah ñoo ko ñu bàyyi grève bi parce que parce que boo gisee ñun saa ñu grève dañuy def service mi moom ak urgence ah. mais comme que gouvernement bi boo defee service ak urgence moom pour moom am na tout lu fay dox rek du lijjanti leneen moo tax nag bu ñu nee nag dem na commencé bay yàq te gouvernement bi commencé faale wuñu am na foo xam ne fu ñu ko laalee foofu dana métti mm-hmm. parce que fu ñu koy laal mooy koom bi nga xam ne mi ngi koy dugal eh, si si si système bi moom kii ko d'ailleurs d'ailleurs même vaccination boo xoolee <laughs> liñ ciy def ci vaccin yëpp gouvernement bi li mu ciy toll matul sax cinq pour cent wala dix pour cent mm-hmm. donc communauté bi ñoo koy joxe boo gisee yeneen programme yi ay ay programme sida yooyu yëpp ak euh, même tuberculose même paludisme nii foo mondial mooy joxe presque lépp ñooñu nag boo leen joxul xabaar yi duñ la joxati duñ la joxatulee doo mën a jënd doo mën a jënd sànke doo mën a jënd garab doo mën a jënd dara. kon daal yéen ultime arme la bu ngeen utiliser pour état mais en même temps day féexal malaat yi. Euh, xëy na ñoom ñu mën a dem di faju tranquillement mais état gën a sonn ci yëf yi. su ma déggee voilà loolu rek la loolu rek la comme que grève bi pour que état bi ñëw toog la bu ñu defee grève bi état bi toogul. ah ñu làmb feneen fu nga xam ni mooy gën a moo ko gën a yëg mm. parce que bo boobaa communauté internationale dana ko ne yow ana xabaar yi comme que amuloo xabaar doo mën a am am am dara doo mën te boo amul xabaar tamit doo mën a planifier doo mën a doo mën stratégie parce que waaw loolu loolu moo waral ñu pour yokk yërmande malade yi rek gën a yokk bi ñuy def mm. urgence ak service minimum doolu yërmande moo tax ñu def rétention pour que gouvernement bi ñoo toog parce que grève grève ci boppam du loo xam ne sax euh, bëgg nañ ko en fait. léegi ñu ñëw ci mbas mi coronavirus euh, njeexteelu ay bés bi ñu génn daal di ngeen yëkkati ay kaddu euh, wax ay njàqare yu ngeen am ci protection wu ñi nga xam ne ñooy fajkat yi mais également ci xew xew diine yi ñu mal te mu mën a yokk lool mbas mi bu ñu jàngatee tabaski beeg li ci tukkee dafay daal di leer. mais aussi yëkkati ngeen ay dànqaafu jëmee ci nguur gi ndax mën nga ñoo tënkal euh, loola ngeen euh, sulli ni jafe-jafe. waaw loolu moom euh, d'ailleurs ñun SUTSAS xam nga bi système bi taxawee ba léegi ñun ñoo nekk gardien du système bon te boo xoolee aussi même muy feebar bi même Ebola béyoon nañ ci suñu waar choléra ak yëpp ñun lu nekk rek ñun dañ ci bay suñu waar même Ebola même feebar bi Covid 19 bi bu ñu commencé. avant muy ñëw ci Sénégal en février la ñu commencé di alerter ñu ne gouvernement daal ñetti mbir bëgg nañu nga fonk ko benn bi mooy formation information communication ak protection liggéey kat yi parce que liggéeykat bu ci nekk bu ñu ko considérer comme un simple citoyen parce que liggéeykat bi si boppam euh, bu feebaree dañ koy def en quarantaine def quarantaine waa këram tey ñaari liggéeykat bu ñu nekkee ci benn bërëb dañuy tëj bërëb boobule mm. euh, pour que ñu ba yeneen jamono donc dafay mel ni xeex char de combat nga daal koy daaneel boo ko daanelee day wàññi potentiel bi pour pour xeex bi loolu la waaw loolu nag aussi gouvernement bi def na si ay jéego ci protection bi wante ñun ni ñu war a protéger bokkul ak ñi nekk a mbedd mi ñi nekk ci benn masque di ko fóot yoon wala juróomi yoon donc nga yor sa masque dem sa yoon mm. parce que loolu mi ngi noonu mais liggéeykatu santé masque bi muy war a am mooy li naan masque chirurgical masque boobu dañu dañ ko war a sànni nga sol beneen masque parce que bu nga mën a wàll sa wala nga leneen mm. ba tax nag masque yooyu doyul ba léegi jéego yi bari nañu mais masque doyul parce que bu fekkee ni yow war nga jël benn masque ñetti waxtu yu nekk mu war a nekk ñu xayma ko ci moyenne rek juróomi masque par bis mais yow normalement par semaine ñaata masque nga war a mën a mais nag boo gisee poste de santé wala maternité bu boolee poste de santé maternité ña nekk Eh, néew na mu mu mu yées fukki nit te fukki nit ku nekk si jëlee benn masque ñetti waxtu yi dem nga sànni ko moo ku ci nekk di nga jël cinq masques muy cinquante masques ci benn bis rek cinquante masques mm. bu nga joxee keesu vingt cinq masques maanaam ñaar fukki masques ak juróom pour benn weer wala jox la benn flacon gel ñaari semaine wala benn weer mais loolu jox nañ la c'est vrai mais au fond a ñu la dara hmm. donc mooy problème protection bi <laughs> léegi nag thermoflash bi mooy mën a tax nit ki température am au moins nga a mën a nga mën a xam sax ni ci jotul feebar wala wala yaramam tàngul mais loolu boo amul thermoflash ko wala bu fekkee jox la ko mu yàqu te changé wuñ ko mais dafa mel ni aussi protéger wuñu structure bi hmm. maintenant li ci aussi mooy la distanciation physique maintenant bu fekkee nag dajale nañu euh, euh, junni milliards maanaam mille milliards pour xeex feebar bi ñun foog nañ ni feebar bi ci boppam moo ci war ëpp solo mm-hmm. maanaam jumtuwaay yi ñuy war a am pour mën a euh, wàllu liggéeykat wàllu maladie maanaam lal yeeg réanimation oxygène ak garab yooyu mais protection liggéeykat yi mais bu ñu leen war a motiver aussi ñuy dem di jox xaalis ñeneen ñoo xam ne bokkuñu secteur bi leen jàppale ci leneen mais foog nañu ñi ñu war a gën a jàppale ñi nga xam ne ñu ngi bay seen waar gu dégg bëccëg te mënuñu dem feneen waaw ñooñu ba tax na nag am na foo motivation bu bu président bi joxe muy cinquante mille francs par mois lañ wax ñu xamuñu soxlu bëri te nag buñ ko jox aussi buñ ko def kumba am day ak kumba amul mm. parce que agent municipaux yi fu mu nekk nii joxuñu len ñii tuuti lañ am ñi joxuñu leen ba léegi ba fi mu nekk aussi ñoom mer nañ ba futu te approche communautaire lañ wax mm-hmm. approche communautaire na collectivité territoriale yi ak euh, communautaire yi ñoo ñoo a ñoo gën a yaayoo même bàjjenu gox yooyu sax dañ leen war a jox seen wàll ci mbir mi koy jox keneen donc kenn gën leen mm-hmm. ci yey religieux yi ñu dëkkmal yi waaw événement religieux yi ñun ñaar lañ considéré comme que nañu masque bi ak distanciation physique bi maanaam ku nekk dand sa morom benn mètre pour nga bañ ko wàll mais xam nga fu ay nit dajaloo ci yu mel noonu mhm. euh, même ci ay ziar ak yu mel noonu mais nit ñi dañ nit ñi dañuy tampaloo mhm. ñu tampaloo aussi feebar bi di gën a law mhm. ah, comme que nag loolu distanciation physique boo dem ci àddina bi yëpp loolu lañ lay wax distanciation physique port de masque mais bu fekkee yow def nga loolu ba pare nga génn ci ay ay ay ay ay ay ay ay mesure def ay couvre def lu nekk mais doo wëlbatiku aussi ñu continuer di jaxasoo dafa mel ni yow li ngay bañ aussi moom ngay nangu hmm. li ngay bañal ñi wala moom ngay nangul nangu ñële ñun nag ay technicien lañu li ñu war a wax lañ koy wax maintenant décideur bi politique bi bu bu defee baax na bu deful ñun du ñu war a wax ñu ngi koy wax. Mhm. ñu jeexal ak dànkaafu yi ngeen yëkkati. Euh, yéen waa ànd gësam. waaw waaw mais dànkaafu yi mooy d' abord suñu mbokku SUDTM travailleurs municipaux yi ñoom fii fan yi xëy na suba wala gannaaw suba dañuy wax danañ wax ministre bi ni ko nag mbir mi dafa jot pour nga jóg ci parce que mënoo dajale soixante neuf milliards ba pare ñëpp di am ñoom ñu bàyyi leen. Hmm. te ku ci feebar non seulement duñ duñ la toppatoo parce que parce que même feebar soldat bu da ngay dem victime de guerre dañ koy mais aussi bu dee am na lu ñu joxe kay ñi ko yooyu yëpp ko jox ñoom dañ leen ci dégg hmm. li ci nag moom mooy aussi euh, Abbas Ndaw parce que directeur bi aussi mënul nekk directeur Abbas Ndaw ñu dénk ko kër gi euh, Adja Ndeye Diakhaté nekk secrétaire général du syndicat Sat Santé nekk vice présidente And Gueusseum personnel bi fal ko moom mu nekk représentant personnel au conseil d' administration mu laaj directeur bi ni ko xaalis bi ñu la jox ci affaire CMU bi nañ ko waxtaane amul lu muy def mu ne ko dama lay delloo ville de Dakar ba nga jóge woon daal def benn leer daal koy yóbbu ville de Dakar ñu ne waa déeta déeta waaye noonu mu ne ki mu doon jonganteel euh, foofu ci ci ci kër gi ci ci conseil d' administration bi moom la moom moom lay nommé mu représenté personnel bi mel ni moom moo war a te moom nekkul sax membre conseil d' administration mm. directeur nekkul sax si conseil d' administration ba moom mooy tànn ku ko war a remplacer yaa ngi dégg. Mhm. dégg naa sax sànq convoqué na ko police yaa waaw loolu mooy lan. léegi nag da ngeen nar a yëngu-yëngal. Ah, mais bien sûr ñu koy saa yi moom moom moom ku lekk si avance di nga sëg bëri loolu am benn problème. jërëjëf Mballo Dia Thiam njiital ànd gësëm euh, secrétaire général SUTSAS itam amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi ñu ngi lay sant bu baax. merci maa leen gën a bég quoi.